kon suñuy màggal barke Ahmadul Xadim yaakaaruñu leen ci man nan ko noonu gone yi lii mooy wax ni fii la ñu nekk lii moo tax nuy waaj lii te réew mi lëj na murit yëpp ñu ci bari jënd nañ leen kenn mënatu la dem ngir lan ab dërëm ñii dem nañ sax ba jaay seen ngor te xamuñu ne ngor gi nga jox Sëñ Tuubaa kenn amuñ jëgam ñii ñu ngi yëg di bu ñu gisee ñu mel ni isbu tarxiya di ay murit piir yoo xam ne bu ñuy dox iblis sax bu leen seenoon ci mbedd jàpp ñuy wut dañu leen gàllankoor rek fekk xamuñ ne dañ leen di jëfandikoo dong. ana murit bu wéral lu muy wuti ci entreprise di sonal nit ana murit bu wéral ba dajaloo def mbooloo te mu dëggal sëriñ bi sije ko ci waxi sëñ Tuubaa Maxaaliqun Niraar moom la lay tuddee Masaalikul Jinaan moom la lay tuddee Hizbut Tarqiyyah moom la lay tuddee Jawharun Nafis moom la lay tuddee looy wuti feneen neet ci moom neet ci moom ñun ci lii la ñu nekk